trois épouses qui n'habitent pas ensemble auprès de quelle conjointe devrait-il passer la fête de Tabaski pour góor goo xamante ni ñetti soxna la am te dëkkuñu ñoom ñëpp euh, ci kan la war a tabaskee. ki ayam tombeeg bi su tabaski bi. boo yoree ñaari soxna wala ñetti soxna. te bokkuñu kër gu ñu dëkk. te mënuñoo tabaskendoo ñoom ñëpp ci kër famille. ki ay gi tombeek tabaski jot kookoo moom ay gi alaaji pap nooy def aawo yaay <laughs> mu xaar ba beneen jamono ah yaay suñu aawo yaay suñu yaay ko kat mën ne su ko bàyyi bis tabaski ay daal ay daal pap mais li gën a rafet mooy nga julli jee nga julee kër kër kër ah, l'islam aawo bi pap l'islam amul lu gën a rafet amul li xel nangu mhm. lislaam ay ordre la mhm. yàlla daf ni na ngeen maandu ci seeni soxna maandu ci seeni doom mhm. dafa bokk nag ci maandu ci ki yor ay soxna ki ay gi tombeek mu aye këram tabaski tombe fa bu ñu mënta dajaloo ci benn kër hmm. kookoo aye waaye tabaski moom il faut ñu dem fekki ji aawo beeg xar ni kër aawo bi lañ koy rendi jeeg amul ci lislaam aawo yaay ñoo fi jiitoog ñooy yaay yeeg ci aada mais ci sharia moom ah. ki aye moo aye bu fekkee nag waxtaan nan ñoom soxna yi d'accord nan hmm. ne ñun ñëpp nanu feeteendoo bis bi ci suñu kër wayjur wala suñu kër jëkkër dafa rafet. Mhm. parce que dana tax doom yi gën a jaxasoo. Mhm. xol yi gën a jaxasoo mu nekk événement bu neex. Mhm. waaye bu fekkente ni bii nag jabar yi wala soxna yi juboo wuñu juboo googu. parce que c'est très rare nga gis ku yor ay soxna ñu jaxasoo ba wóolontee lekkan lekkalante ci kër yi da ngay dem yenn saa yi ñu ne kër diw la ñuy tabaskee lañ fay lekk doo ko wóolu wala bu ñu dee jox sa doom lekk nga koy piis naan ko boo demee lu ñu la fa jox neel suur naa aromasi sëñ Fall bi baax na de balaa ngay lekk man noonu rek laa ko jàpp aromasi sëñ Fall rek damay wis rek bak sëñ Fall bak sëñ Fall gis nga aromasi bi aromasi sëñ Fall bi baax na <laughs> ki ki ki ay gi tombeel daal. ki ay gi tombeel daal pap waaw fa nga war a aye ji. bu dee tabaski la bu dee tamxarit la bu dee korite la lu mu ci doon. Hmm. sansam la fala la ay gi fekk boo mënta dajale ñëpp ñu bokkandoo tabaskeendoo. Hmm. fala ay gi fekk demal nga tabaskee foofu. mënoo tabaskee ci kii sa seetaane <laughs> ci ki nga jeng. fas sa kanam rek jël sa décision. yenn saa yi nga gis ku julli ji ku julli ji naan damay jaar xool xale yi. kër yaayu caane la ñuy julli. waaw damay jaar xool xale yi waaw ne damay jaar kër deuxième dame bi. góor day dëgër xool Pape Diouf na ko góor day dëgër. góor day dëgg. Pape saa yi nga gis koo xam ni fa muy jëm aayewu fa. naan day xool xale yi. munu ñàkk xool seen sañse yi photo ñoom waaye nag xam nga Pape xoolu xale yi bu demee ba nar a jël ñeenti waxtu. yamatoo ci xool xale yi. am na ci ñoo xam ne da nga yegg ñu la ba voir. waaw xam nga yooyu itam dootal a gis xale yi. Pape daal soxna bari li ma mën a xam la daal mooy ay coono daal am na ci. ok parce que moom lu ne di nga ko def. soxna yu bari waaw moom daal da nga mel ni ku ba léegi yaa ngi yaa ngi bëgg ñaareel. balaa 2000 2000 2000 lan lañ nekk 22. xale yi dañuy vaar. non Pape déglul ma wax la. xamal li lañ nekk. xaw ma sax ba année lañ nekk. 2022 fi. 2022. 2022 juin juillet août septembre octobre balaa deux mille vingt deux di jeex bëgg naa takk deuxième femme. incha allah incha allah incha allah yàlla na ko yàlla balaa deux mille vingt deux bii di ko yàlla matal fii laa ko waxee nag te lu ma wax def ko. ci kattanu yàlla yàlla baax na incha allah. donc defe naa question boobu leer na pour un homme qui a trois épouses yow euh, dafa mel ni yaa ngi labat de kon yow mi calculer weer ci weer <laughs> wax rek. labatuma nag Pape la may xool rek. afa ah, yi jëloo kenn. bon rek nag amuñu nëbboo sama xarit nga vraiment yàlla moo ñu boole amuñu nëbboo quoi yaa ngi jël yaa jël ci xale yi <laughs> li ma ngoon a njaay géwél naan ma faseetu Moodu Fall moom mën na maa rey yaa ngi jël ci xale yi te da xew jël ci <laughs> ah! ci xale yi booy dund dangay def fi kuy dund Zosé ay Zosé wala boog yaa ngi jël ci xale yi wax rek yow mi joxe àpp fi lekk ay weer di nga takk ñaareel yàlla baax na xëy na doo jékki-jékki rek takk koo xamul xanaa balaa balaa nga koy takk dinga nga xamanteeg moom on aura la réponse de Oustaz Modou Fall allez deuxième question